site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko Je ko prend pour jëmmal jigen liñ ciy def conférence lañuy def conférence bi thème bi li li ma autonomie pour mu pour autonomie pour mu autonomie sax pour capacité ay capacité suis ñu permettre ko mom mu ah, wara parce que wara importance place société parce que bëri na importance parce que tay bo set jigen ni jang nañ am nañu capacité ñu ngi ñefe li goor di mëna def jigen a koy def tay mais suñu problème moy dafa toujours dañuy sentir na dañuy am blocage dañuy parce que liberté bi ñu wara jox dafa dess li ñuy xeex mooy ñu jox ñu liberté bi mettre ñu si suñu place li ñu bëgg li ñuy liggéey ñu jëmmal ko fulal ko manam parce que jigen manam looy set société mënut a dox sans jigéen. métital yi ñu ngi def parce que dañuy métital en général dinañu métital parfois li nga gis jeex dañ leen di dañ leen di violenté dinañ leen euh, maanaam ba dafa daf leen di bloqué sax ci li ñu war a def yëpp parce que léeg-léeg jigéen sax dafay am surtout ñun da ngeen ne dañuy liggéeyee liggéey ba bëgg a demee du feeñ parce que nañ wax ne toujours suñu suñuy effort dafay xaw a nëbbatu parce que manque de liberté boobu la manque de dañ dafa dañuy dañuy tënku te loolu dañ ko war a xeex pour dindi ko ndax tey fu jigi li góor di def ñun jigéen ñun ñu ngi koy def mais nag ak ñu ngi koy def mais toujours te dañ dañ leen parce que toujours dañ ngeen ñu war accompagner parce que goor ñi ñun dañoo soxla ngeen accompagner jigéen ñi pour lépp lu ñuy fu ñuy nekk ñu ak seen yërmande taxawu bi dañ ko soxla ci goor ñi ak ñëpp taxawuñu parce que moo tax li ñuy bëgg li ñu mën a extérioriser parce que mën nañoo extérioriser suñuy sentiment ak suñuy effort parce que mooy maanaam mooy blocage bi ma lay wax rek buñ ñu ko mënoon a may liberté ba nga xam ne léegi fu ñu mën a taxaw maanaam duñ ñu métital duñu ñu manqué de considération parce que tamit loolu tamit bokk na ci blocage ndax ñun jigéen lépp lu ñuy def ñu ngi ñooy ñefe ñu ngi ñefe ci kër yi ñu ngi ñefe ci ci ci ci bureau yi ñu ngi ñefe ci fu ne fu ñu mën a nekk ne jigéen dañuy ñefe parce que ak jom ak suñu fula ak fayda donc la xam naa kuy béy ci waat dafa bëgg ku ko ne jaajëfal donc bu ñu ma jaajëfaloon tuuti yokku ñu courage day dem. waaw euh, bis bi ñu ko bis bi niñ ko màggalee dañ ci ubbi rek euh, waxtaan ak xalaat parce que bi ñu toogee ñun ay jigéen. xool ne tey jii dañuy wax autonomisation mais autonomisation ay yoon yu bari la pour que jigéen mën a libre ci boppam féex ci boppam ba mën a def li ko war mais bu ma nee libre ci boppam féex ci boppam teewul ni ay valeur moo koy moo ci lay sukkandiku teewul ni ci li mu bokk fi mu bokk ndax ñun ay nit ñu ñuul lañu ci la ñuy sukkandiku donc ñun réflexion boobu la ñu te niñ ko ubbee du du xarab li ñu doon du xarab aussi euh, li nga xam ne suñuy waajur ak suñuy maam def nañ ko ci ñun mais dañ koo def ni comme léegi yëf yi dafa bees ndax bu njëkk dañoo joxoon wanoon ni kan lañu ba pare léegi bi école ñëwee modernisme ñëw yu bari ñëw loolu dafa dem ba xaw a réer xaw a nax saay parce que lu bari day jóge bitim réew di ñëw di dal ci sunu kaw donc dañuy dem ba li ñu doon réellement dootuñu ko sax xam donc ñun dañ ne nag nañu ubbi réflexion pour ñu wan ne Afrique li mu am lu baax la te loolu bu tey ji ñëpp di yuuxu naan Euh, journée de la femme jigéen ñi amuñu li jigéen ñi amuñu li wala kenn considéré wala la lañu danoo wara jël ñun li nga xamné suñu tradition jox nañu ko muy valeur muy opportunité ñu boole kook yu baax yi nga xamantene ci biti la joggé té ñu mën cee mën a wu ci suñu biir ñu boole loolu yépp mu nekk lima tuddé particularité africaine manam li Afrique mëna yokku yokk Afrique mëna yokku ci 8 mars du ni rek yuuxu di wut di wut mais aussi wané ni bu njëkk ñun ay valeur lañu andi won

parce que léegi sii nii sax lañ ko gën a soxla parce que at yii yëpp dañuy wax parité parité mais parité bi bu ngeen ko xoolee dafa mel ne lu ñu waxtaanee la rek denc ko ci ay ay ay tiroir mais dafa war a nekk lu effectif loo xamante ne jigéen ñi tey fuñ ne góor gi mën na lii jigéen ji mën lii bu buñ tegee fii góor tur na teg fee jigéen waaye li góor ñi mën jigéen ñi mën ko ñu jël lépp jox góor ñi xaw a mel ne lu ñu cofantal tuuti jigéen ñi loolu tamit day metti tey ji boo xoolee ñi dem ci kanam di defi politique fukk ak juróom-ñeent lañu benn jigéen kott rek dong moo ci nekk loolu wane na ni quelque part xëy na ñun fayir nañu parce que xëy na bi ñu waree dem ci terrain politique yi war a wax war a def defuñu ko mais encore ñi nga xamante ne aussi moo ñoo jiit mbir mi ñoo ko jiite ñoo ko war a saytu am na itamit xool bu xaw a bu ndaw bu ñu xaw a xool jigéen ñi ba jigéen ñi amuñu réellement li ñu war a am donc loolu yëpp day nekk réflexion yoo xamante ne tey bis bi dañ ciy xalaat ci loolu lañ nekk am ay conférencier am ay borom xam-xam yoo xam ne invité nañ leen fi ñuy xool daal taxawaay bu ñu war a mën a taxawee ëllëg ba yu mel ni ñu mën koo gën a rafetal gën koo mën a taxawal ba fuñ ni góor gi mën na lii ah jigéen ji tamit mën na lii kon nañ ko ko jox donc loolu daal bokk na ci li nga xam ne moom ñu ngi koy ñaan bu baax a baax gannaaw nag ba ñu xamee ne góor ak jigéen moom duñu mus a tolloo boo seetee biologiquement nuroowuñu dama ko wax sànq ma ne jigéen mooy ëmb di wasin mais góor moom ñaanuñu ko yàlla doom dëddoo wala mbokk dëddu wala nit dëddu góor moo koy yóbbu suuli ko denc ko kon ñoo xam ne ñun complémentarité boobu dañ ko war a dawal ñii dañoo dëgër yàlla moo leen ko may ñu am fit mais ñun amuñu fit mais am nañu xel am nañu xam-xam kon ñun ñaar dañoo war a bokk di defandoo di dindeendoo kenn waruñoo séparé liggéey waruñoo tàqale société waruñoo tàqale mais aussi adduna bi waruñu ñoo tàqale parce que buñ dégloo rek lu ñuy wax ci adduna bi day mel ni góor ak jigéen dañoo war a tàqaloo wala jigéen dafa war a xëccoog góor demewul noonu liñuy laaj rek moy li jigéen man goor man ko kenn ku ne sa yelleef ak sa ak ñu jox la ko ci. seen site d'information Sine TV nekkee fi ci diwanu fatik andi leen lu bees tak lepp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ayb yi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité Sine TV nekk fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko jàll.